wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira anta waliyuna fa niama almawla wa niama alnasir أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحبكم كالعادة في كل يوم الأربعاء ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور وبعد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 ñi ngi ziyaara waa Touba waa Tiwaawan waa Njaasaan waa Pir Sañaxoor di ziyaara waa Nimzaat waa kër Seydina Isaa Ruuxullah fii ci Yoff di ziyaara al usra al omariya waa kër Cheikh Amar al di ziyaara waa kër Cheikh Ibrahim Ñas ci Kawlax waaye di ziyaara it waa kër Ceerno Mouhamadou Ba ci Medina Gunaas eh, di ziyaara it waa jàngu bi waa kër abe ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara di leen waaye di ñëw ak yéen mbokk yi ci seen émission euh, bu mag bi nga xam ne moom lañ tuddee addu'a li qadaa il qadaa il xawaa'ij moom moo dellu siwaat ak yéen seen émission bu mag boobu ñu leen tuddalee addu'a ngeen bàyyi ci xel wa ala kulli xaal moo dellu siwaat ak yéen incha allah euh, di leen ndokkeel fil aamil jadiidi wa kullu am wa bi xeyr ala kulli xaal di leen ndokkeel ci at mu bees bi ñuy dugg vingt di ñaan yàlla mu nekk sanatal xeyri wal barakati wal rahmati mu nekk atum yërmande atum jàmm atum xéewal ala kulli xaal ku ci am jafe-jafe yàlla na ko yàlla teggi ku ci nekk ci xat-xat yàlla na ci yàlla génne waaye lu ci waaye di séntu it mu yéex yàlla na ko yàlla yombalal ku ci am wéradi it yàlla na yàlla may ala kulli xaal mbokk yi eh, nashkurukum kal aadati gaayata shukri li xusni mutaabaatikum maana fi kulli yawmi al arbia eh, mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel di leen wax ne incha allah ñu ngi dellu siwaat ak yéen fa yéene ànd ak yéen te it fas yéene ubbi téléphone yi ànd ci ak mbokk yi ci 88 628 99 80 88 628 99 80 wala ngeen ànd ak ñun ci 00 221 33 841 23 23 haa tey haadayn arraqmayn inchaa allahu mahma ittasaltum bina bi haadayn arraqmayn inchaa allahu kal aadati fi intidaarikum mbokk yi ñaari numéro yaa ngi noonu su ngeen wootee di ngeen ñu jot ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen émission bu mag biñ leen di defal mbokk yi àllarba bu jot ci waxtu bi ñu di ko tuddee addu'a mbokk yi ñi ngi dellu siwaat ak yéen di leen fàttali ndax fàttali dafa am solo li alquran di wax naan fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin fàttalil ndax fàttali dafa baax ci jullit Euh, bari aana naam sax loo xam ne lii mbokk yi dañuy woote di ko laaj bëgg ñu jaraat ci wala bëgg ñu leen koy fàttali ala kulli xaal bi ci jëkk nag mooy juróom-ñaari butéel yi ñu fi waxoon nga xam ne eh, yiw wi ci nekk bari na xéewal gi ci nekk bari na lilladina indahum al amrad al batiniyati aw zahiriyati fi ajsamihim ñi nga xam ne ñi dañoo am wéri di yaram seen bopp bëgg yàlla def ci xéewal yàlla saafaraal leen seen wéri di yaram mbokk yi ñu dellu si fàttaliko askan wi ñu teewlu ko bu baax dañ leen waxoon ne leen dee leen jël juróom-ñaari butéel yi Evian yi bees tàq yu kenn dàjjeegul ngeen dajji ko ba benn par benn ba mu mat juróom-ñaari butéel butéel bu ci nekk ngeen jàng ci faatixa bu sell ayatul kursi yi fukk benn laqad jaakum fukk ak benn wa samaai wa taarix fukk ak benn ko benn yaasin wal quraanul hakim bu ngeen paree mbokk yi soo xëyee suba ba ndékki ba pare nga jàng fatiha fanweeri yoon ñett nga naan xaaj soo añee nga yoon ak ñett nga naan xaaj soo reeree nga àggalee xaaj bu mujj bi muy salaasata aqsaamin fil yawmi mu nekk ñetti xaaj ci bés bi xaaj bu ci nekk nag euh, da nga ciy def sa yéene ma kunta tash'uruhu fi jismika min al li nga yëg ci sa yaram ci ay métit yëpp nga yéene ko ci incha allahu mbokk mi asa allahu an yabasa alayka maqaman mahmud wa ma dalika ala allahi bi aziz yàlla mën na la ci defal mbokk yi lu kawe sa kon mi noonu euh, ad dawaul kabir ordonnance bu mag baa ngoog comprimé bu mag baa ngoog eh, aaju gu faju gu rëy gaa ngoog ndax wa fil qur'ani ma huwa shifaun linnaasi wa rahma alquran mbokk yi ci la lépp nekk ci sunu defaru fii ci la nekk suñu defaru fii jëmit ci la nekk kon nañ ci bàyyi xel mi ngi noonu mu la laam solo lool ñu di ko fàttali saa suñu ñëwee lilladina yuriduna isticmaalu hada dawa al mufid fi jismi Euh, ñi nga xam ne ñi bëgg nañ ko topp jëriñu ci euh, faj ci seen yaram ala kulli xaal ndax kat almarad min akaabir aada fi xayaati l insaan wéri yaram mooy noon bi gën a rëy ci dundug doomu aadama kon mbokk yi mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel dañu ne woon rek Eh, sa nu zakkiruhu wa sa nu zakkiruhu aw wa sa nu karriruhu kan aadati eh, fii kulli yawmil arbien àllarba bu jot su suñu ñëwee dañ koy fàttali mbokk yi ci ñi nga xam ne doon nañ daan nañ ko teewlu bëgg it suñu ñëwee ñu jaaraat ci ñoom it ñu gën ko mën a teewlu bu baax lépp luñ ci fàtte woon ñu fàttali ko ko mu la am solo eh, biñ ciy teg mbokk yi te mu am solo lool mbokk yi saa yu ñëwee rek dañuy laaj ñu jaaraat ci waxoon nañ leen ko dafa am ñetti mbir ba ñeent ba juróom ba juróom benn yoo xam ne benn bu ci nekk dafa am solo ci dunduk doomu aadama mbokk yi waxoon nañ leen ne leen man faqada nawmahu fi yi ay man araada an walla walam yastati an nawm nit ki nga xam ne kii dafa bëgg nelaw ne nelawam dafa jeex su tëddee guddi néew na lu muy nelaw bu nit ñi ne di nelaw mu jóg toog waaye nag nañu bàyyi xel na it ñàkk nelaw feebar la mën na la jeexal mën na yóbbu sa yaram mën na yóbbu sa xel waaye it mën na la indil ay xat-xat yeneen ci sa biir yaram moom feebar eh, mu mel ni ñàkk nelaw daal feebar lay jural nit nañ ci bàyyi xel waaye dañuy wax ni nit ki lu la mën a dal ci sa àdduna rek nga bëgg yàlla saafara ko demal seeti alxuraanul karim boo gëstu alxuraan rek mu indi la tegtal ki nga xam ne kii dafa bëgg nelaw mu të ko tëj mu jéem jéem dara sa tuul lu mu doon jëm lu nekk na ko bàyyi te déglu lii ñuy bëgg a wax ndax bu ko jëriñoo inchaa allahu dina ci gis euh, manfaatan azimatan fi xayaatihi dina ci gis lu kawe njortam mbokk mi dangay jàpp ba set nga julli li ñuy wax euh, juróom-benni rakka rakka bu ci nekk nga def benn fatiha ak douze wadduha wa leyli ida saja ñu baamtu ko mbokk yi ñu teewlu ko bu baax jàppaleen ba set ngeen julli juróom-benni rakka rakka bu ci nekk ngeen def benn fatiha wadduha wa leyli douze soo paree mbokk mi nga jël sa kurus nga def astaghfirullah ñetti téeméer salaatu ala nabi boo gën a man ñetti téeméer boo paree nag door a wird allahu ya shakur waxoon nañ leen ko allahu ya shakuru mil cent onze mille cent onze ci wolof mooy junni ak téeméer ak fukk ak benn junni ak téeméer ak fukk ak benn kooku mbokk mi hada huwa dawaul kabir lillazi yuridu nawm walam yastati an ki nga xam ne kii dafa bëgg a nelaw jéem-jéem dara sottiwul amaana ngay naan ay garab pour bëgg nelaw te it amaana garab yooyu boo ko tàmmee naan bés dina ñëw mbokk mi boo ko naanul say nelaw day jafe kon fatamassak bi hada daa al kabir jàppal ci bunt bi inchaa allahu yàlla dina la ci defal mbokk mi lu koy sa Euh, ñi ñëw ci ñaareel bi ñaareel bi mbokk yi mooy ki nga xam ni kii daf lay wax ni man de saa yu ma taxawalee julli sama xel lu ñaaw rek lay xalaat saa yu ma taxawalee julli sama xel lu ñaaw rek lay xalaat su ma duggee ci jàkk sama xel lu ñaaw rek lay xalaat su ma ñëwee sama kër sama xel ci lu ñaaw rek lay nekk su ma génnee dem sama bérébu liggéeyukaay sax sama xel lu ñaaw rek lay xalaat wa ma sababu zalik ana lan mooy sababu loolu nañu bàyyi xel ne mbokk yi seytaane mi ngi fi sunu biir ak i njabootam seetaane nag buñ ko waxee bari aana ñu ko déggul bu baax ñu bëgg nag ñu déggu ko seetaane mbokk mi du benn jëm ay njaboot la yor am ay doom ay doomi doom doom yooyu am ay doom doom yooyu am ay doom am ay sëtaati sët ñu tasaaroo fi jamii anha il alam ci àdduna bi yëpp ñi nga fa te dara du seen liggéey lu dul rekk yàq kon mbokk yi bari aana luy dugg ci xolu nit di ko defloo naka sa lu noonu te du teye fa amaana sax boo ko defee ba pare ci ngay door a gis ni ndekete man lii ma def du noonu kon mbokk yi foofu boo fa tolloo daal delluwaatal ci naafila bi nag nga def as nga def euh, juróom-benni rakka boo defee juróom-benni ba pare nga rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha wa duha wa leyli douze fois bo paree nga def astaghfirullah ñetti téeméer salaatu ala nabi bi nga gën a man ñetti téeméer so pare nag nga door a wird allahu ya haadi moom ngay wérd neuf cent quatre-vingt-dix-neuf allahu ya haadi neuf cent quatre-vingt-dix-neuf gis nga mbokk mi en tant que yaa ngi jàpp ci allahu ya haadi neuf cent quatre-vingt-dix-neuf seytaane dootul am ci yow yoon li lay wëlbati ba mënoo xalaat yàlla lu lu ñaaw rek ngay xalaat dina deñ te dinga nga nekkaat bi salaamin wa aafiyatin wa xayrin di nga nekk ci jàmm ju bari incha allah kon mbokk mi mi ngi noonu allahu yaa haadi 999 am na solo euh, ñi ñëw ci ki nga xam ni kii mbokk yi nañ ko teewlu nag ndax bariyaana kuy wax ni émission bi am na luñ ci waxoon waaye dañ ko fàtte moo tax saa yu ñu ñëwee nu karriruhu summa nu karriruhu ñi di ko baamtu pour ñi nga xam ne ñi dañuy wax ne am na lu ma ci rëcc wala am na lu ma ci fàtte ñi man ko ku bu baax mbokk mi ki nga xam ni kii dafa lay wax ni uridu zawjatan saalihatan taa'iatan mu'minatan muhibbatan lid diin wa muhibbatan li zawaajiha ki lay wax ni damaa bëgg soxna soo xam ne sii dafa bëgg diine bëgg lislaam bëgg jaamu yàlla bëgg sëy sëy bu rafet topp ay ndigalu ay kilifaam soxna su baax su sell su bëgg diine soo ko bëggee da koy ñaan rabb samawaati waaye it procédure bi moom lañ leen di wax procédure bi mooy jàppal ba set jullil juróom-benni raka raka bu nekk fatiha bu sell nga def wa duha wa leyli douze fois soo pare nga def astaghfirullah ñetti téeméer salaatu ala nabi ñetti téeméer ba pare nag mbokk mi nga door a wérd eh, lii ñu bëgg a wax muy allahu ya karimu trois mille six cent soixante six trois mille six cent soixante six allahu ya karimu ñi bamtu ko trois mille six cent soixante six eh, trois mille six cent soixante six mooy ñetti junni ak juróom-benn téeméer juróom-benn fukk ak juróom-benn allahu ya karimu am na solo eh, mbokk mi ku ko topp ku ne yàlla dina la nat tàggatal soxna su baax yàlla dina la indil xéewal indil la jigéen joo xam ne ji euh, tuhibbu diin euh, wa tuti rabba kama yuraam yàlla dina la di indil ko bëgg diine kuy jaamu borom kam na mu ware kon mbokk yi ngi noonu allahu ya karim trois mille six cent bi ci tegu mbokk yi te benn bu ci nekk ñi bëgg jaraat ci mbokk yi fàttaliku ko xam ko eh, bi ci tegu mooy ki nga xam ne kii daf lay wax ni uridu ibnan saalihan wa zurriyatan tayyibatan dama bëgg njaboot gu barkeel waaye dama bëgg it yàlla may ma doom joo xam ne ji daañu ko dégg ci dara ibnan salihan kariman mujtahidan muhazaban aqilan mutian li walidayhi aw mutian li awamiri walidayhi ala kulli xaal mbokk mi ku sañoon ku doom ji ngay am muy gën ci doom yi ku sañoon ku sa doom moo muy ëpp alal ñëpp ku sañoon ku sa doom day bari xam-xam ku sañoon ku sa doom day yaru day baax day dégg ndigal day topp ay waajuram bari aana ku jur doom mu mel melokaan boo xam ne bi gënula ko ci dundam boo teree du bàyyi boo digalee du def boo ko ne toogal du toog bul dem mu dem mu yéeme lool waaye ku sañu daal mbokk mi sa doom balaa génn sax dina ñëw ne la ah, baay kat maa ngi bëgg a dem bërëb sàngam yaay maa ngi bëgg a dem bërëb sàngam bi taatin ah, bi samain wa taatin ak topp gu am solo waajur wu nekk bëgg nga sa doom yàlla may ko jikko bu mel noonu loolu nag mbokk yi waxoon nañ leen ca commencement bi ne leen sa doom bu dëngee bul dóor soo dooree dangay gën a yokk sa doom bu dëngee bul dàq ci biir kër gi téyel sa doom bu jubadee bul ko génnee kër gi téyel te ngay ñaan yàlla rek ndax addu'a u silaaxul mu'min ñaan mbokk mi mooy ngànnaayu jullit amul lenn lu ñaan mënul ci àdduna lillazina yaarifuuna addu'a ci ñi xam lan mooy ñaan kon mbokk mi bul dóor bul génne kër gi bul dàq téyel ndax yow mii di waajur su la yàlla maye mbub mu rafet nga di ko sol ba mu tilim mbokk mi doo ko sànni danga koy fóot paase ko gome ko daakaande ko defar ko ba mu baax solaat ko mu nekk mujj gi mu nekk na mu meloon ca ba nga koy am ndegem mbubb nga mën a toppatoo ba mu rafet astamaak nit ak jëmmam kon mbokk mi bul dàq bul dóor bul wax wax ju ñaaw teel mag ñu jëkk ña kaanu la yaxrujuuna fi buyutihim al awliya wa saalihin nitu yàlla yu baax yi daaw ñu génn seen biir néeg ñu toog ci biir néeg bi rek téye seen kurus di ñaan seen borom rek yàlla sama njaboot gaangoog yàlla yaa ma leen jox yaa ma leen gën a xam ana daiful xaal ku néew doole laa mënuma ci njaboot gi dara xanaa kay loo ma taxawe rek mbaa nga dimbale ma ko mbaa nga jàppale ma ko ci njaboot gi maa ngi lay ñaan njaboot gi ma ma ma yewu yàlla nga def leen njaboot gu barkeel njaboot gu topp diin islaam njaboot gu tegu ci siratan mustaqima noon nga koy toppe wala boog ñoom noonu lañ ko daan toppe di ko ñaan tiilata xayaatihim seen dund yëpp te yàlla it buy nangu seeni ñaan dangay gis ni doomu kilifay diine yi yëpp dañuy tegu ci siratan mustaqim te doo dégg jàppal bàyyil doo dégg wax ju ñaaw du ñu wax wax ju deborde kenn ku ci nekk li la war di nga xam loolu nag mbokk yi li koy maye mooy li ñu bëgg a wax da ngay delluwaat ci naafile gi nañ ci bàyyi xel naafile gi nag saa su ne dañ koy baamtu ndax solo gu mu am mbokk yi jàpp leen ba set ngeen julli juróom benn rakka rakka bu ci nekk nga def benn faatiha wadduha wa leyli douze fois boo paree nga jël sa kurus nga wérde euh, trois cent fois astaghfirullah boo pare nga def trois cent fois salaatu ala nabi boo gën a man boo paree nag nga door a wérde allahu yaa jalilu moom ngay def sept cent soixante-dix-sept sept cent soixante-dix-sept ñi nga xam ne ñii nag xam nañ ko te di ko topp mbokk mi euh, ñetti set yooyu ngay gis noonu euh, bari aana kuy jël euh, benn set muy juróom-ñaar bind ko def ko ah, def ko ñaan boole ko ndox zam-zam di ko jox ay njabootam ñi di ko naan guddi ak bëccëg ndax boobu jamono ndaa moo amoon dañ daal jël ndaalu mag teg ci diggu kër gi def ci ndox ñëpp ci la ñuy naane waaye taxayaratil azmaan euh, waxta waxtulifatil axwaalu euh, jamono soppeeku na ndaa amatul kon mbokk yi li fi nekk mooy ñu jël allahu yaa jalilu di ko liggéey 777 di ci ñaanal njaboot gi yàlla teg leen ci siratan mustaqim di ci ñaanal njaboot gi yal na leen yàlla jubal waaye ku ci nekk ku ne njaboot go nga am boo ci ñaan yàlla na nga tudd seeni tur yàlla alayka bi fulaan yàlla yaa rabbi alayka bi fulaan ibni ismuhu kaza wa kaza yaa rabbi alayka bi fulaan ismuhu kaza wa kaza yow yàlla maa ngi lay ñaan sama doom diw bëgg naa ci moom nangam ak nangam ak nangam na jub na baax na dégg ndigal na tegu ci siraatal mustaqim xataa yantahi al abnaau kulluhum doom bu nekk nga jaar ci turam ñaan ci yàlla ne yàlla jubalal ma sama doom diw tegal ma ko ala siraatin mustaqim kon mi ngi noonu mbokk yi ñu bàyyi ci xel muy allahu yaa jalil muy bu turu am solo turu bari eh, njëriñ ci dunduk doomu aadama mbokk yi nag dañuy digal benn mbir ñaan yi nag sopp nañu boo koy def bari aana ñuy woote di laaj al awqaat al munasaba waxtu yi nga xam ne baax na ci di ko jëfandikoo sopp nañu diggante onze heures jëm minuit diggante onze heures jëm minuit nga di ko ci def am na solo lool xam nga mbokk yi nisfu layli diggante guddi onze heures jëm wi ba une heure du matin ba deux heures du matin sax fii sërrun kabir secret bu rëy mi ngi ci waxtu yooyu sopp nañu nag ku ciy jóg di ci def yenn tadarruaat yi ilallahi baakiyan Eh, eh, sopp nañu man yatadarra amaamahu amaamallahi bakiyan mustaatafan ka man taqaabala maa almawti wachan li wachin eh, sopp nañu lool kuy jóg ci waxtu yooyu am na solo beneen bi mooy ki nga xam ne kii yuridu ijabatan waadixatan fi kulli amrin ijabatan waadixatan fi kulli duaain ijabatan waadixatan fi kulli xaajatin min xawaaiji dunyawiyati mbokk mi ki nga xam ne kii dafa bëgg nag aaju gu faju lu mu ñaan yàlla may ko ko lu mu séntu yàlla jox ko ko lu mu tàllal loxoom yàlla nangul ko ko waaye lu mu mébétit yàlla fekk ko ci mbokk yi eh, nañu delluwaat ba tey ci naafila gi gis nga dee leen jàpp ba set ngeen julli juróom benn rakka rakka bu ci nekk fatiha benn yoon wadduha walleyli isa saja douze fois boo paree nga def astaghfirullah téeméeri yoon salaatu ala nabii téeméeri yoon soo paree nga door wirde allahu yaa mujibu allahu yaa mujibu quatre mille quatre cent 44 soo bëggee loo ñaan yàlla nangul la ko loo sumb ci wàllu ñaan yàlla yàlla fekk la ci loo tàllal say loxo yàlla yàlla nangul la ko del wirde allahu yaa mujibu 4444 waaye bi chartin condition bi nga xam ne bi moom lañ ci gën a sopp mooy ibtidaau hatha doa il kabiri jamono bi nga war a toog ba war koo commencé sopp nañu an yakuna fi ibtida yowmi allazi talaa fi talaa fihi alqamar min warai alxuyum wa gamara bi nuurihi tilka ruwabi wa shawaati mbokk yi euh, sopp nañu lool boo koy def nga bàyyi ba ñu wax ne la weer wi feeñ na tey laqad talaa alqamar alyowma min warai alxuyum wa gamara bi nuurihi tilka arwaabi wa shawaati fa daharat al qura ala aktaafi al awdiyati muy lu am solo lool awali yowmi alladi dahara fihi al qamar premier jour bi weer wi feeñee nga topp ko di ko def di ko wérd di ko wérd ba xataa asbaxa al qamar badran kaamilan nga dem ba mbokk mi weer wi mat sëkk baron euh, fiihi qadaau xawaijil insaan euh, aaju gu faju mi ngi ci nañ ci bàyyi xel euh, muy la am solo lool mbokk yi ñu teewlu ko te bàyyi ci xel beneen biñ ci tegu nag mbokk yi te borom soxla yi yittewoo ko lool mooy yenn saay nga ngay dund ci àdduna yenn soxla yu bari di la dab lu mel ni ngénte sa doo sa bëgg tudd sa doom bëgg am xew bëgg am yenn soxlay àdduna yi te benn bu ci nekk dafay laaj borom yàlla may ko wërsëg bu mu ci mën a def te bari aana ñu mën a wax seen bopp bari aana ñu mënul wax seen bopp mbokk yi nit buy dund day jànkonte ak ay soxlay àdduna yii day jàmp yii day taxaw yii daf lay bett yii day ñëw ci waxtu yoo xam ne yi soraalewoo ko lu mel ni sa soxna mucc nga am ay gan nga am loo bëgg a taxawal foo war a dem ak yeneen ya cay tegu ak yeneen soxla yi nga xam ne benn bu ci nekk nuroowul ak moromam nga war ci teew te benn bu ci nekk boo ci teewee am na lu ci war ni te ngi yenn saaye bëgg a tukki sax tukki jafe ko addu'a nag dafa bàyyiwul dara nañ ci bàyyi xel addu'a mooy émission boo xam ne bi mbokk mi eh, soxlay adduna yépp bàyyiwu ci dara lépp dala ci indil solution moo tax ñuy wax mbokk yi ñi du ko teewlu bu baax ndax solution bi lu mu tuuti tuuti addu'a dina la ci indil solution bu ci baax bu la soxla bettee ak nu mu la mënti bettee ak soxla bi fu mu mën a jege nga teewulu ànd ak sa dal te xam ne Eh, al qadaau alxaajati bi yadillahi jalla wa ala nga xam ne fajkatu aaja bi mi ngi fi muy rabbu samawati wal ardi ki nga xam ne kii samiun alim alladi axaata bi kulli cheyin wala yuxiituhu ahad huwa alladi uh, arsala riyaha nushran bayna yaday rahmatih eh, huwa al aalimu bi kulli cheyin kooku mooy régler situation yi fu ñu jaaxlee rek nañ ko di sunu bopp mbokk mi boo ci tolloo dañ lay wax ne euh, fexeel nga def lii ñu bëgg a wax nga teew teewlu ko te bàyyi ko xel euh, jëlal sa kurus nga wérd euh, deux mille six cent soixante six allahu ya wahaabu su la soxla dabee jëlal sa kurus nga wird deux mille six cent soixante six allahu yaa wahaab bu xatee ba xat ba deux mille six cent soixante six xaju ci wirdal lu new néew néew néew néew te gàtt allahu yaa wahaab boo paree nga tëje ko maa waddaaka rabbuka wa maa xalaa trois cent trente-trois maa waddaaka rabbuka wa maa xalaa mbokk mi moom nga koy tëjee 333 inchaa allahu jalla wa ala rabbu kulli cheyin soxla bi lu mu jàmp lu mu yàkkamti lu mu tar def ko jox yàlla ne ko yàlla mbir màngoog innaka samiun alim wa innaka ala kulli cheyin qadir wa anta alfaal lima yurid anta aalimu alxaybi walchahaada laa yaraaka ahadun wa anta tara kulla shay gis nga dis nga ko yàlla waxante nga ak rabbu samawati wal ardi nga ko mbiri te dina la wan ne innani samiun alim wa ana ala kulli shay incha allahu mbokk mi soxla boobu di nga ci am lu kawe sa njort Euh, muy lu jar a bàyyi xel mbokk yi kon isa ji na fi fi kulli yamil arbia dañuy def saa yu rek mbokk yi nga xam ne dañuy ñaan ñu jaaraat yi ñu di leen ci jaaraatal dafay am solo waaye nag waxoon nañ leen ni hunaka amrayni jalilayni wa azimayni wa mufidayni dafa am ñaari mbir yoo xam ni dafa am solo dinañ ko fàttali askan wi ñu bàyyi ko xel bi ci jëkk mooy iqraaju haatayni sadaqatayni fi xayaatil insaan ñaari mbir ngi nii ci wàllu sarax baax na mbokk yi waxoon nañ leen ne dee leen génnee sarax mboq ak dugub mboq mi ñaari kilo dugub ñaari kilo benn bu ci nekk ngeen jàng ci faatixa bu sell ida jaa nasrullahi juróom-ñaari yoon ida fajaakum xaajatun min xawaaiji dunyaweti bu la soxla bettee bu baax bu jafe bu neex bu jafewul bu diis bu mag bu ndaw defal sarax bi am na ci solo li tax nag mbokk yi ndax wa fil qamxi barakatun kama fi zurrati baraka waxon nañ le ne mboq dafa am barke bu ci yàlla def dugub dafa am barke bu ci yàlla def ndax nit ñi dañoo xamul rek xëj na maa fi maa fi xamxi wa zurrati min al barakati waaye yàlla def na ci barke bu rëy rëy rëy rëy dinañ ci ñëw yowman min al ayaami al aatiyati inchaa allahu sa maakum bi bayaani haadayni al amrayni fi ma bayna al qamxi wa durrati dina ñëw ci ñaari mbir yooyu ci diggante mboq ak dugub beneen bi ci tegu te muy sarax bu baax waxoon nañ leen ne in kaana laka rizqun kasirun kii nag ci ñi nga xam ne ñi yàlla may na leen wërsëg wu yaatu yàlla na leen kàttan may leen alal bu ñu mënee defee liñ bëgg def yépp soo dee borom alal te yàlla may la kàttan nga man ko danga koy commencé ci xar nag mbaa giléem boo ci man rek nga def ko bi ci gën nag mooy weeru première weer wu dee dimaas bi ci jëkk danga koy tëb nga dem ci ñaareeli dimaas ba première weer wu jëkk bi nga koy def dimanche bu njëkk bi da koy tëb dem ci ñaareeli dimanche bi soo amee xar reyal soo amee nag reyal soo amee gileem reyal nga togg ko togg bu sell togg boo xam ne bii dafay tollook ko amoon gan ci këram di ko ganale li ci li muy laajeb def ko ci lépp luy neexal togg gi rekk def ko ci boo paree nga def ko ay ndab yu bari nga takk sa ndigg ànd ak ñi nga xam ne ñi ñoo lay jàppale ci ñi ngi ci servir bi nga dugg ci aljiraan wal aqriba wal asdiqa wal ixwaan duggal ci dëkkandoo yi am di jàmm yi jege ñaale yi ak xarit yi kër gu nekk nga dugal fa ñam ba ba muy jeex tànk jeexul rek bul taxaw liñ ci gën a sopp nag inda alfuqara walmasakin wal abriyai wattuasa sopp nañu ci ñi nga xam ne ñi dañoo néew doole seen doole néew na kër gu nekk nga dugal fa ñam mbokk mi gis nga ndab yooyu nga dugal ci dëkkandoo yi ak am ni jàmm yi ak néew ji doole ji benn pepp ñam bu ci nekk yàlla da la koy fulal defal na ko junni tuyaaba wa kayfa ana naka la nit ki di jëlee alalam boo ko roccee ci sa poos yéene ji dugg na yàlla bind tuyaaba nga woo ñi la koy defaral jox leen xaalis ne leen jëndal leen ma gileem wala nag wala xar yàlla bind ñi koy jëndi indi ko tànk bu ñu seqi ba ba ñuy ale bi ak retour yàlla bind nga ñëw jox ko toggkat yi ñi di ko togg coono buñ ci daj ale bi ak retour bi ak euh, coono bañ ci def yépp yàlla bind togg gi pare ña koy yekk yàlla bind ña koy jël di ko yóbbu di ko jox al alfuqaraa wal masakin wal abriya yàlla bind yow mi takk sa ndigg ànd ak ñoom ci dis ci fañ koy distribuer yàlla bind des na nag ci ñi nga xam ne ñii ñoo koy jëfandikoo képp ku ci ku ci jëfandikoo rek benn pepp ceeb bu nekk yàlla bind waa mbokk mi yii tuyaaba yëpp bu ko yàlla dajalee dencal la ko yowmal qiyaamati nga ñëw ni tel gis gaa yi yàlla yi di la teeru ñi naan ki ñoon xaar ñëw na borom yëf yi ñëw na borom château bi ñëw na borom climatiseur yi baax yi ñëw na borom néeg yi baax yi ñëw na borom ndox yi neex yi ñëw na ñi di teeru comme ni ñi teeroo buur di la yóbbu àjjana di la jox sa wàccuwaay ndax yaa ko liggéeyoon fil xayaati yaa jëloon sa alal mu jaral la nga sacrifier sa bopp sacrifier say soxla ngir alfuqara wal masakin wa tuasa wal abriya ngir rek bëgg dimbali euh, miskinu yàlla yi ci kaw suuf te yàlla dafa fonk al masakin wal fuqara yàlla dafa fonk miskinam yi ak ñi nga xam ne ñi dañoo néew doole te da leen di bàyyi xel lool ñooñu la gën di bàyyi xel ak jirim yi kon mbokk yi euh, mi ngi noonu mu nekk sarax boo xam ne bii ku ko man ku ne xadru mastataata noo ko mane ak fu sa kàttan toll fa xayrun def leen ko yiw la te yiw rekk nga ci jële kon mi ngi noonu euh, ñaari sarax yi bëgg nañu fàttali ko askan wi fàttali ko mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ngir ñu jëriñu ci ndax kat boo fi xasee jóge rek jàppal ni li fi nekk sa ginnaaw yëpp moomatoo ko li nga ci bëgg a def yëpp mënatoo ko def li nga ci mébétoon yëpp mënatoo ko yéene bi nga amoon sa ginnaaw yëpp dagg na kon boog saabiqu ila maghfiratin min rabbikum góorgóorlu leen ngeen njëkkante jëmale ko ci yiw sel yi gis nga alxuraan mu ngi ñuy wax naan lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbun su ngeen ma bëggee am man rabbu samawati wal ard naa leen jaral mbokk yi ngeen jël seen alal di ko def fi sabilillah ngeen jël seen alal di ko def ci indal fuqaraa yi walmasakin wa tuasai wal abriya muy lu am solo lool te man faala dalika ku koy fara farataal di def doo ko rëccu naam fi nga nekk nii waaye doo ko rëccu it ala kulli xaal eh, yowmal qiyaamati eh, bu la fa yàlla àggalee doo ko rëccu eh, muy lu am solo lool lu jara bàyyi xel mbokk yi waxoon nañ leen ko ala kulli xaalin dinañ ci dellu siwaat inchaa allahu waaye dañuy dellu si nag ci ki nga xam ne kii dafa doon ñaan bu ñu ñëwee euh, ñu jaaraatal ko ci liñ fi waxoon dañu leen waxoon ne lan euh, soo amee ay bor yu bari mbokk yi dañuy ñaan saa su ne bu ñu ñëwee ci suñu émission Ad-Du'a ñu di ko fàttali soo amee ay bor yu bari nga bëgg ko fay te amoon noo ko fayee amoo pexe nga jéem mu të diis ko diis ko ki nga xam ne kii mën na lu ne am na lu ne te li mu yor du jeex ba ilaa yawmi diin muy rabbu samawaati wal ard soo ko koy diis nag soo amee bor da ngay def astaghfirullah ba pare cent fois muy téeméeri yoon nga def salaatu ala nabi téeméer nga door a wird nag lii ñi bëgg a wax nekk ci suratul furqaan mu aya neuf ba dix muy tabaraka allazi inchaa jaala laka xayran min zalika jannatin tajri min taxtiha al anhaar wa yajal laka xusuura nga di ko def six cent soixante boo ko toppee ab diir bu néew rek incha allah yàlla ci mbaaxam dina la tàggatal waa ju baax waa ju am waa ju am kàttan indi la xéewal gu toll ni di ci mën a sax fay say bor ba dese ci lu la fajal sa aajo gis nga inna allaha ala kulli shay'in qadir mbokk yi nanu bàyyi xel na fa muy sottee yow la jaaxal nit mooy toog naan lii aw ma ko fu muy jóge ku ma koy jox kañ laa koy am ban waxtu lay ñëw liggéeyuma fu ma koy jëlee ku ma koy jox yàlla xamul loolu mbokk yi ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun dañu bàyyi xel ni yàlla bu nammee dara rek ak fu mu ko nammee ak waxtu bu mu ko nammee rek mbir ma sotti na bu ñu am sax sikki sàkk di xalaat fu muy jóge bàyyi ko ci loxoy ki nga xam ne kii xaadirun ala kulli shay'in bàyyi ko ci loxoy rabbu samawaati wal ard mbokk mi mu fajal la sa bi ahsanil wujuh kon mi ngi noonu tabaraka allazi in shaa jaala laka xayran min zalika jannatin tajri min tahtiha al anhaar wa yaj'al laka xusuura nga di ko def six cent soixante-six waaye des na nag ki nga xam ni kii daf lay wax ni dañ maa yoreel te su ma sañoon ñi ma yoreel it ñi delloo man liñ ma yoral yoral bi axsanil wujuh te duñ ci am benn xat-xat boobu it mbokk yi dangay delluwaat ba tey ci suratul furqaan nga dellu ci verset quarante quatre euh, ba quarante cinq nga jàng aaya bi muy alam tara ila rabbika kayfa madda zilla walaw shaa la jaalahu saakinan summa jaalna shamsa alayhi dalila summa qabatnaahu ilayna qabdan yasira nga def ko 444 bor buñ la ameel ki ko amel bu nekkoon États-Unis sax yàlla dina wëlbati xolam ba saa yu tëddee sa bor bi rek lay xalaat dootul lekkati dootul naanati dootul nekk ci jàmm tànk rek lijjantiwul lu mu la faye bi axsani ruju xelam du toog mbokk yi ñu baamtuwaat ko ci suratu furqaan alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walaw shaa la jaalahu saakinan wa jaalna samsa alayhi dalila summa qabatnaahu ilayna qabdan yasira muy laam solo lool muy aaya boo xam ne bi fiha manfaatun azimatun fi xayaati l kon ñaari mbir a ngi noonu euh, yoo xam ne yi mbokk yi saa ne dañ koy laaj di bëgg suñu ñëwee ñu jaaraat ci ñu jëriñu ci euh, di fàttali nag mbokk yi ci ligne bi xam naa ni euh, ñu ngi ci jéggalu lool xat xataayu waxtu wi ak xat xataayu ligne bi ndax mbokk yaa ngi ci ligne bi bëgg dugg xëj na mu jafe ci 88 628 80 99 ak 00 221 33 841 23 23 wa nahnu fi intizaarikum ala kulli xaal euh, beneen bi ci tegu biñ ci teg ci li mbokk mi laajoon sànq bëgg ñu jaaraat ci euh, muy la am solo loo xam ne li ala kulli xaal muy ki nga xam ne kii dafa am day def commerce te bëgg lu mu jaay yàlla jaralal ko ko allahu alam yàlla moo xam bitig nga yor wala magasin walla loo yor ak looy jaay ak lu mu ci mënti doon na doon rek am njaay te nga man ko bu dee bitik taxawal ci buntu bitik bi nga jublu penku nga jàng wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa qaala ya qawmi ittabiu al ittabiu man laa yasalukum ajran wa hum muhtadun ba nga def ko fanweeri ak ñett nga génnaat ci biti ci bunt bi ci biti nga jubluwaat penku nga jàngaat wa jaa min aqsal madinati rajulun yasaa qaala ya qawmi ittabiu almursalina ittabiu man laa yasalukum ajran wa hum muhtadun gis nga ida staamalta hadihi l aya fi l baya inchaa allahu sa yaatika annaas min kulli fajjin amiqin bi awni llahi wa rahmatih yi mbokk yi yàlla dina la ci defal lu dina la indil ay nit doomu yoo xam ne yi ñooy jëflante ak yow fi ma al bayu wa shiraau ala muy la am solo lool mbokk mi nañ ci bàyyi xel Euh, waxoon nañ leen ko saa yu ñëwee dañ koy baamtu ngir ñi nga xam ne ñi ñu ngi ko bëgg di teewlu bañ mu rëcc leen muy laam solo beneen bi mbokk mi dafa yénne bataa xalam mu ngi bitim réew di laaj euh, liñ fi waxoon ci euh, feebaru xol muy loo am solo moom it mu di ko laaj bëgg ñu indi ci ay ay bayaanaat feebaru xol nag moo xam cardiaque la moo xam ay battement de cœur la mooy xam problème mu cardiovasculaire la comme niñ koy waxee ak yooyu day nekk ay amraad yoo xam ne ni di feebar yoo xam ni bu la dalee bu mu ci mënti doon rek te muy feebaru xool bu la dalee da ngay bàyyi ba guddi ba ba ngay waaj a tëdd ba reer ba pare nga jël meew nga tàngal ko ba mu tàng ba nga xam ne du la lakk waaye seddul nga jël sa kurus nga wérd alam nashrah laka sadrak foofu rekk nga yem nag alam nashrah laka sadraka nga wérdu ko six cent soixante-six ba pare nga ko ci kaasu bi rek nga naan tëdd na mujj sa biir nag soo ko xasee def ba pare rek bu ci tegati beneen lekk bu ci tegeti beneen naan ba bor set alam nashrah laka sadraka six cent soixante-six nga boole ko ak meew mu tàng mu nugg incha allahu na mujj sa biir nag nga xam ne bi looy def def ko euh, fi axiri awqaati naw ci waxtu yi mujj ci boy tëdd nga def ko door a tëdd mbokk mi am na solo muy lu jara bàyyi xel loolu nag day wane ne wa fil qur'ani ma huwa shifaun linnas wa rahma alquran daal mbokk yi li ñuy teewoo yëpp mi ngi ci biir nañ ci bàyyi xel euh, su ko defee euh, ñu ñëw fi ñu toll woon rek ci mbokk mi nga xam ne mi euh, moom it dafa doon laajte li ko soxal lool waxoon nañ ko dinañ ko waxaat su fekkente ne mu ngi ñuy bàyyi xel di ñu teewlu euh, ñi ñëw ci moom ci bataaxal bi mu yónnee bëgg ñu indi ci ay bayaanaat mbokk mi dafa doon laaj ne moom dafa nekk ak soxnaam ñu dund ñeenti at ba juróomi at bëgg njaboot bëgg am doom waaye ba léegi amaguñu muy ñaan ana lan moo baax ci koo xam ne kii dafa bëgg njaboot te amagu ko mbokk mi nañu teewlu am na loolu buñ koy wax dañu bëgg ñi koy déglu teewlu ko bu baax ba man koo jàpp bu baax soo koy commencé nag commencé ko wax dëgg yàlla bi gën te gën mooy buñ la waxee ne la laqad tala al qamar min wara il xuyum weer wi feeñ na tey nga commencé ko wutal ndoxu zam-zam nga teg ko sa kanam jël beneen kaas def ci zam-zam teg sa kanam nga tiim leen nga jàng li ñuy bëgg a wax soixante-six muy bismillahi arrahmani arrahim kaa heya ayn saat zikru rahmati rabbika abduhu zakariya is naada rabbahu nida an xafiya qaala rabbi inni wahana alazmu minni washtaala arrasu shayba walam aku bi duaaika rabbi shaqiya wa inni xiftu mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fa habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub wajaalhu rabbi radiya nga jàng ko 66 radiya la yem ba pare nga jël beneen aaya bi ci tegu te nekk ci suratul anbiya diggante 88 ba 89 muy wa zakariyaa id naada rabbahu rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul waarisiin nga def ko 66 bii 66 bii 66 nga ëf ko ci ñaari kaas yooyu nga def ndoxu zam-zam nga jël benn naan jël benn jox sa soxna mu naan nga di ko def fi kulli laylatin guddi gu nekk bala ngeen di tëdd xataa asbaxal xamaru badran kaamilan ba weer wi dem ba mat ba ron ba nga xam ne bi mat na sëkk mbokk mi bu weer wi matin rek boobu mooy tuul di nga ne soxna si euh, euh, mbiram taxaw na yàlla dina la ci defal sirran aziman lu kawe sa njort incha allah te di nga ci am njaboot mbokk yi ñu teewlu ko bu baax euh, nañ ko teewlu ndax fi dalika manfaatun azimatun fi xayaati l yoon waa Euh, ci ki nga xam ne kii dafa bëgg njaboot des na nag ki nga xam ne kii am na njaboot ba njabootam walla boog soxnaam toll na diggante ba toll foo xam ne fii war na moom boppam ñi naan juróom-ñeenti weer war naa mucc te ëmb bi ëmb bu jëkk la mu ngi koy door daal Eh, bokk na ci li ñuy gënal tiit ci jigéen gën cee am ñaari xel mooy ki nga xam ne ki musul ëmb ba xëy ëmb bëgg it yàlla suuturaal ko ba mu mucc ci jàmm ak salaam bu ci tolloo mbokk yi ba am juróom-ñeenti weer ba nga commencé di yëg ni eh, mi ngi commencé di am al alaam fi batnihi mi ngi commencé di am mettitu biir yu ko sonal ñu war ko yóbbu hôpital allahu alam xamoo ndax dañ mucc wala dañ koy césarienne wala ak lu mu ci mën a am waaye loolu yépp lu mën a am daal jëlal sa loxo yow mi borom kër nga teg ko ci biiru soxna si nga jàng li ñuy bëgg a wax mu ngi nekk ci sóoratu raadi sept ba huit nga jël bismillahi arrahmani arrahim allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidu l arxam wa ma tazdaad wa kullu cheyin indahu bi miqdaar ngeen déglu ko bu baax allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidu l arxam wa ma tazdaad wa kullu cheyin indahu bi miqdaar nga jàng ko onze fois ci kaw biiru soxna si loxo ndeyjooram ci faaru ndeyjoor bi nga tegaat fa sa loxo nga jàngaat ko onze fois loxo càmmoñ bi ci faar yi nga tegaat ko fa jàng ko onze fois muy allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidu arxam wa ma tasdaad wa kullu cheyin indahu bi miqdaar eh, inchaa allahu yàlla dina la ko jàppaleel mu mucc bi axsanil wujuh ci jàmm ak salaam te du am benn xat-xat boo boo dee sage femme ñu ngi lay ñaan nga jël aaya bii nga gànnaayoo ko jigéen jooy rewle te bëgg yàlla may la ci ndam yow sage femme jëfandikool allahu yaala ma taxmilu kullu unsa so dee médecin ngay rewle jigéen bëgg yàlla may la ci ndam wala muy ngay def opération wala intervention chirurgicale ak yooyu dee leen def allahu yaala ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidu l arxaamu wa ma tazdaad wa kullu cheyin indahu bi miqdaar euh, kon mbokk mi euh, aaya bu baax ngi noonu ci ñi nga xam ne ñi dañuy jëfandikoo médecine ñii dañuy rewle ay jigéen kii dafa am soxnaam mu tollu diggante bëgg mu mucc bi ahsanil wujuh te du am benn te du am benn jafe-jafe yàlla jàppale ko dimbali ko ba mu am ba mu mucc te du am benn xat-xat ci ëmb bi kon mu ngi noonu muy lu am solo mbokk yi nañ ci bàyyi xel euh, ñi ñëw nag ci ki nga xam ne kii moom it dafay wax ne bari aana nag kooku moom ñu koy laaj bari na waaye na mbokk yoo xam ne dañ lay wax naan man daal dama bëgg tukki man daal dama bëgg dem bitim réew ñii ne damay lijjanti ay kayit dafay jafe ñii ne dafa am lu may xaar saay ma ko xaare duma ci jot wa li kulli insaan fi lxayaati xaajatuhu ala kulli xaal mbokk yi soo bëggee tukki zahaban wa iyaaban soo bëggee tukki tukki boo xam da ngay dem baag ñibbisi beex sa ni del jël sa kurus ngay wird bés bu nekk boo ko mënee de ko def nag soixante-six rek doy na muy bismillahi arrahmani irrahim ci suratul an'am wa tilka xujjatuna ataynaha ibrahim ala qawmihi narfau darajata man nasha inna rabbaka xakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan hadayna wa nuhan hadayna min qablu wa min durriyatihi daawuda wa suleymaana wa ayub wa yusufa wa muusa wa haarun wa kazalika najdi almuhsinin wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyasa kullun min alsaalihin wa ismaila wa yasa wa yunusa wa luutan wa kullan faddalna ala alaalamin mbokk mi lii de ku koy farataal di jëfandikoo bés bu nekk soixante-six marra inchaa allahu euh, sa yaatika allahu bi xayrin wa safarin tayibin wa futuhaat laa tuaddu wala tuxsa yàlla mën na la indil léegi mbokk yi yoon woo xam ne li la fiy jële nga tukki sax doo ko xam fu muy jaar doo ko xam nu muy dikkee doo ko xam kullun bi yadillaahi lépp ci loxo yàlla lay tegu te moom moo koy réglé ba mu mat sëkk kon mi ngi noonu wa xujjatuna aataynaaha ibrahim ala qawmihi narfau darajata man nacha inna rabbaka xakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan hadayna wa nuhan hadayna min qablu wa min zurriyatihi daawuda wa sulaymana wa ayuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadalika najdi almuhsinin wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyasa kullun min alsalihin wa ismaila wa yasa wa yunusa wa luutan wa kullan faddalna ala alaalamin mbokk mi mi ngi noonu muy lu am solo ci ki nga xam ni kii dafa bëgg tukki dem bitim réew imma dafa bëgg faje ay aajoom wala dafa bëgg dem utali lu mu dimbale ay njabootam ala kulli xaal muy lu am solo lu jar a bàyyi xel Eh, mbokk yi mi ngi noonu dinañ ci ñëw léegi eh, ñu ñëw nag ci ki nga xam ne kii moom it eh, dafay yónnee bataaxalam waxoon nañ ko ci émission yi passé moom it dafay laaj laaj bu ko boo xam bi daal bëggoon nañu indil ko ci ay ay ay buntu yu bari wala boog ñu indil ko ci benn ci buntu yoo xam ne dina ko dimbali ndax yittewoo na ko nee na moom cet ak làmmiñ daf ko sonal moo ko sonal te mu bëgg daal suñu ñëwee ñu wax ko diggante cet ak làmmiñ lan moo ci baax ñu wax ko ko mu di ko jëfandikoo dañ lay wax ni mbokk yi cet ak làmmiñ saa yu la sonalee del def saa yoo jullee benn jullik farata rek nga jël sa kurus nga wér de waylun li kulli humazatin lumazatin cent onze waylun li kulli humazatin lumazatin waylun onze saa yoo jullee rek tisbaar takkusaan timis gee def ko cent fois incha allah di nga ci mucc yàlla dina la ci may ndam yàlla dina la sàmm ak foo mën nekk nañ ci bàyyi xel waylun li kulli humazatin kon mi ngi noonu mbokk yi nañ ci bàyyi xel muy muy la solo lool kii nag mbokk mi dafay yónnee di laaj ni moom day wirdu lu ci bari ismul jalaali ismul jalaal nag bari aana ñu koy laaj di yónnee bëgg ñu indi ci ay bayaanaat euh, ismul jalaali nag du ñu digal nit ñi di ci di ñi di ko farataal di jëfandikoo ci adadul kabir wala ay am xawi yu yooyu dañ koy bàyyi ndax ismul jalaal tur la boo xam ne bii dafa jara bàyyi xel mbokk yi nañu bàyyi xel ci yenn tur yi di ko jëfandikoo jar naa bàyyi xel surtout nag tur yooyu nga xam ni suñu mbokk yi xam nañu fi may waxe muy tur yooyu nga xam ni siin yi dañoo bari lool te gudd yooyu moom jar naa bàyyi xel ci ñi ko xam ne ñi ma indahum xibra fi dalik aw talsa min al talasim aw jadwal min al yooyu nga xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo wala yaarifuna uh, mawqif al amri ay mabdaul amri wa intihaihi du ñu xam commencement bi ak fa muy jeexee ji nañ ci bàyyi xel waaye ahamun daal euh, dañ leen di digal rek soo leen ko demee ba mun leen ko ñàkk bañ a def nangeen ngeen yem ci 434 434 baax na yem na doy na sëkk ci ismul jalaal euh, nañ ci bàyyi xel ba pare nag nga ñaan ñaan gi nga xam ne gii mooy ànd ak mooy muy allahuma inni asaluka bi alifi uluhiyatika ya allah wa bi haai hidayatika ya haadi wa bi mimi mulkika ya malik wa bi sini salamatika ya salaam bi qaafi qudratika ya qaadir wa bi kaafi kifayatika ya kaafi wa bi haai xilmika ya xalim wa bi laami lutfika ya latif wa bi ayni ilmika ya alim wa bi yaai yumnika ya yamin wa bi saadi samdaniyatika ya samad hada huwa daaw ahamun saxakun halaan yasun min akabir al asma il batiniyati fii xayaat al insan nañ ci bàyyi xel ndax euh, mbiram dafa yaatu euh, dafa yaatu te dafa gudd te dafa bari kon ñi nga xam ne ñi amuñ ci expérience nañ ci farataal di demee ndànk te bañ ci demee doole suñ la joxee benn tur boo xam ne bi daa bari ay siin tooy lool demal ci ko xam ne kii am na expérience ci Euh, tur nu muy tëddee ndaxit day am tur yoo xam ni mbokk yi dañuy jël tànk yi indi ci bopp bi jël bopp bi yóbbu ci tànk yi soo koy wér di nag mbokk yi dangay nekk ci diggante lëndëm ak leer laa ila zulmati wala ila nuuri doo dugg ci leer gi te doo génne ci lëndëm gi ndax li ngay wér dañ koo damm mag ñu jëkk ñi dañuy jël tur jël tànk yi indi ci ginnaaw jël kanam gi yóbbu ca fa ca des xaw fan dañ ko doon def ngir bañ ëllëg nit dal ci defe ko noo xam ne ni amaana du niñ ko bëggee woon nëbb googu ñu koy dëbb nag soo ci dalee xamuloo lan muy tur ko gisee rek li ñuy tuddee ci arab kamantara comme ni nga ko gisee noonu rek nga koy jëfandikoo yaakaar ne hakaza al amru yaakaar ne mbir mi noonu la tëddee fekk tëddeewul noonu nañ ci bàyyi xel beneen bi mooy tur yi nga xam ne dafa bari ay siini tooy dem leen ci ko am xibra mina talsami awil talasim awil jadawil awil musallasaat ngeen dem ci ko am xibra ku leen ëpp expérience ngeen won ko ko mu teg leen ci yoon beneen bi ci tegu nañ ci bàyyi xel turu jinne dee leen ko moytu mbokk yi ndax jinne joo xam ne ji fil xaqiqati xamuloo mag la xamuloo ndaw la xamuloo xale la xamuloo fu mu dëkk xamuloo fu muy fanaan xamuloo nu mu yeewoo xamuloo jinne la joo xam ne ji ci safara bu ñuul lañ ko tëggee wala ci safara bu xonq wala ci safara bu weex yooyu yëpp xamoo ci benn xamoo fan lay fanaan xamoo nu mu mel ñaata at la am xamoo ko fu mu dëkk xamoo ko lu muy dundee xamoo ko buy ñëw ci yow fan lay jógee ba agsi ci yow xamoo ko su ñu ñëw ban melokaan lay am xamuloo ko kon mbokk mbokk yi nañ ci def ndànk bari aana kuy woo jinne fekk doomu jinne ngay woo te xamoo ko bari aana ku yor tur yaakaar ne doom la fekk ko jigéen la bari aana ku yor tur jinne yaakaar ni ndaw la fekk mag la bari aana it ku yortu jinne yaakaar ne jinne bu yem la rek fekk ni kilifa ci kilifa yi ngay woo te xamoo ko nga di ci nekk ba mu indil la eh, ay jafe-jafe yoo xam ne yi pour ñu delloo siwaat la ci sa xaal bi nga jëkkoon nekk day xaw a jafe kon mbokk yi dee leen dem ci ñi nga xam na ñi indahumul xibra fil umur am nañu expérience ci wàll yooyu ñu di leen tete li leen wax ne lii nii la lii nii la lii nii la eh, jinne di ko woo nag baax na nga xam ki ngay woo mooy kan waaye di woote rek te ki ngay woo xamoo kan la xamoo ku baax la xamoo ko bon la xamoo ko soxor la xamoo ko bari yërmande la xamuloo jigéen la xamuloo góor xamuloo xale la xamoo mag la yaa ko li nga xam rek yaa ngi koy woo eh, fu muy jóge sax ba wuy xamoo ko kon mbokk mi baax na ñu def ci ndànk wala boog ñii dem ci ci nga xam ne ñii sax wax dëgg yàlla am nañu expérience ci mbir yi ñi di leen gindi euh, mi ngi noonu wa kazalika al asmaau rawxaaniyin euh, tur rawxaani it kazalika noonu la tëddee euh, tur rawxaan boo koy farataal di jëfandikoo yow it na nga lu ba xam tur yi mooy ban tur ak fu mu jóge ak luy cosaanam ak ci lan lay dox est-ce que dëng na est-ce que jub na est lépp lëndam la wala lépp la dafa am tur yoo xam ne kulluhu zulmaaniyatun ak ismu boo xam ne kulluhu nuuraaniyun lépp leer la lii lépp lëndëm la kon tamyiz daf ci baax ngay mën a ràññaatle lii lii la eh, lii lii lay eh, tegtale am na solo lool nit ki di ko bàyyi xel ndax bari aana eh, lu nit di am lu ci ëpp ci dundam ay jafe-jafe yoo xam ne ci tur yooyu ñoo ko indi kon ñu bàyyi ci xel bu baax euh, beneen bi ci tegu mooy bi ñuy wax ne rek mbokk mi nee na dafa bëgg am day yar jur bëgg yàlla barkeel ko maanaam bëgg mu yokk ba yaatu ba yaatu lool ba nga xam ne lépp lu mu ci bëgg a def mën na ko ci def loolu soo ko soo ko amee moo xam xar la moo xam giléem moo xam nag moo xam béy boo boo ci mën a am di ko yar te bëgg yàlla barkel ko yàlla defal la ci lu kawe sa njort yàlla ko baril ko del ci biir gétt gi ngay liggéey six cent soixante six lii laa fi qurayshin ilaafihim rihlata chitaai wa sayf falyabudu rabba hadha al alladi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf li ilaafi qurayshin mbokk mi bu ñu xamoon diggante li ilaafi qurayshin ak idaa jaa nasrullahi li fi nekk ci ay xéewal kenn xamul commencement bi kenn xamul fu mu jeex diggante li ilaafi qurayshin ak idaa jaa nasrullahi fiihima futuhaat min alxayraat yàlla da ce def ci ñaari diggante ñaar yooyu alal judul jeex mi ngi ci saar yi nga xam ni saaru alal la te mën a may alal ñaar yooyu ci la bokk muy liilaafi qurayshin ida jaa nasrullahi moom it ci la bokk nañ ci bàyyi xel muy ñaari saar yoo xam ni benn bu ci nekk li mu ëmb ci alal kenn xamul nu mu toll bi nga xam ne bi mooy ñetteel bi te xaw a kawe tuuti mooy xam suuna xaaf xam su naqaaf mbokk mi château ngi ci or ngi ci jamaa ngi ci lépp lu waay bëgg ci àdduna rek ci mbirum alal ci sa dund demal nga seeti xam su naqaaf xam su naqaaf nag waxoon nañ ko fii ci jamono yi passé ne juróomi aaya la yoo xam ni benn bi ci nekk aaya bu ci nekk fiiha manfaatun azimatun fi xayaati l insaan xéwal gudul jeex mi ngi ci biir ñett yi nag man tamassaka bihim ñett yi ku ci jàpp lool doo sonn doo ñàkk doo jaaxle doo tumuranke lii laa fi qurayshin ida jaa nasrullah ak xamsuna qaaf ñetti kenn du ci jàpp di ñàkk mbaa ngay sonn mbaa ngay jaaxle mbaa ngay tumuranke gis nga mbokk mi bu ñu waxee ni béréb sàngam yàlla def na fa alal te ku fa dem jëriñu ci alal ji te xamoo béréb bi fu mu nekk du sotti naam xamoo ko sax waaye doon na baax sax nga xam ku ko xam ñëw dimbali la ne la ah, béréb bi kat fii la walla béréb sàngam la walla kaay ma jàpp ci sa loxo yóbbu la fa loolu mooy xamsuuna qaaf ida jaa nasrullah lii laa fi quraysin ñun ñëpp xam nañ ko kasiran min annaas ñu bari ci ba doomu aadama yi xam nañu xam xamsuuna qaaf xam nañu ida jaa nasrullah xam nañu lii ilaafi qurayshin waaye lii lii yéeme ci mbir mi mooy naka lañuy def ñoom ba am ci liñ ci bëgg liñ leen di digga rekk mbokk yi su ngeen jógee xam suuna xaaf ci ñu ko man diggante timis ak gee lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt def ko juróom-ñaari yoon diggante timis ak gee lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt xam xamsuuna xaaf juróom-ñaari yoon diggante fi fajar gi di xare balaa jant bee fenk lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt defal lii laa fi Quraysin 66 diggante fi jant bi fenkee ba naaj bi di waaji tàng lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt def fa idaa jaa nasrullahi 66 kon mbokk yi ñu bàyyi ko xel te xam ni eh, looloo tax ñi le leen ñett yi yiw kese la ci dundug doomu aadama kon nañ ci bàyyi xel lii nag day tegtale ne alxuraan daal mbokk mi lépp nga ci biir eh, muy lu am solo dafa am loo xam ne ni nag waa la kulli xaal waxoon nañ ko fi eh, daañu ci jaaraat ngir ñi nga xam ne ñi dañuy bëgg saasu ne bu ñu ñëwee ñu jaaraat ci waxoon nañ leen ne yii garab ñu tudd dañ koy baamtu baaxul ci kër poftan baaxul ci kër darkase baaxul ci kër garabu kàdd naam new na sax lu muy am ci biir ci biir kër àll bi la ëppe waaye baaxul ci kër garabu niim baaxul ci kër yi ñi tudd benn bu ci nekk baaxul ci kër darkase poftan garabu niim bi ci tegu muy garabu guy guy mbokk yi baaxul ci biir kër yi ñi lim yëpp benn bu ci nekk maa fi xeeru fii daaril insaan baaxul ci kër gu nit di dëkk baax na ci yeneen béréb yu kenn nekkul waaye bërëb daal bu nit di dëkk yi garab baaxu fa bi gën daal te boobu baaxul ci kërit mooy filao filao baax na cim réew bu bare ndax garabu filao mbokk yi réew lu mu bari bari bari garabu filao dina dimbali réew ma waxuñu ne suuf dafa yëngatu waaye néew na néew na lu fa suuf di yëngatu ci suuf béréb boo xam ne bii dafa bari ay garabu filaawo kon filaawo mbokk yi garab la boo xam ne bii njëriñam bari na lool cim réew naam kenn mosoo ko gis sax ci biir kër ndax moom bañ na ko ba du sax ci biir kër li ci ëpp ci àll bi rekk lañ koy nemmeeku waaye réew mu bari daal néew na lu fa suuf di yëngatu nañ ci bàyyi xel muy lu am solo mbokk yi beneen bi ci tegu te xeej ne moom lañuy jeexale émission bi mooy ki nga xam ne kii euh, daf lay wax ni sama bopp day métti métti yu tar te mënuma ci dara garab bu nekk naan naa ko dara sottiwul jëlal kaas nga def ci ndox mu sedd ngay jàng walla aadiyaati dabaxan fal muuriyaati qadxan wal aadiyaati dabxan fal muuriyaati qadxan nga jël ndox mu sedd di ko raay ci boppam fanweeri yoon ak ñetti nga di ko ko jàngal wal aadiyaati dabxan fal muuriyaati qadxan foofu rek la yem ngay raay ndox mu sedd mu ci boppam boo paree bu tëddee tuuti bu jógee incha allahu dina ci am lu kawe njortam mbokk yi fii nag la ñuy ak yéen incha allahu ba àllarba bii di ñëw ci seen émission bu mag bi ñu tuddee adduaa di leen wax ne incha allah àllarba bii di ñëw dinañ dellu siwaat ànd yéen ci ay mbir yu am solo ndax adduaa mooy ñaanu fajukaay aajo adduaa li qadaa il xawaayij la wax kon képp ku am aajo bu la jaaxal soo wootee ci addu'a ci émission addu'a incha allahu di nga ci am résultat di nga ci am faju aajo ci zahir ak ci baatin kon mbokk yi mi ngi noonu ñi ngi jéggalu nag xat-xataayu waxtu wi ndikoon manoon nañu ànd ak yéen ba ci kanam waaye waxtu wi xat ñi di leen wax ne incha allah yowm al arbaa al sa naati maakum incha allah kal aadati eh, bi diqatin wa sururin kama kunna nafaaluhu fi kulli yawmil arbia mbokk yi ñu ngi noonu ñu ngi eh, di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi di ñaan atum deux mille vingt mu nekk atum naataange atum yokkute atum ubbeeku atum wërsëg allahuma rabbi samaai wal ardi wa nuuri wa zulmati wal xaruur yaa man chaqa al bihaara wa ajra man rafaa samaa bi gayri amadin wa yaa man huwa ilahun fi kulli makaan ya awalu ya axir ya zahir ya batin innaka ya rabbi ala kulli cheyin qadir allahuma rabbi ya qaadi alxaajat wa ya mujibu ya mujibu daawat ajib duaana waqdi xawaaijana ya rabbi zahiran wa batinan innaka ala ma tashaau qadir allahuma rabbi alsamai walardi wannuuri wazulmati wazilli walxaruur laa tuxayib rajaai ya rabbi wa rajaana wa rajaahum wa rajaa jamic almuslimin wa salli ala nabiyika wa xabibika wa rasulik salaatan taftax lana biha ilahi abwaaba alrida waltaysir wa tuxliqu anna biha abwaaba alchar waltaasir wa taqdi lana biha ya allah jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya walaxira ya rabbi ya ilahi anta waliyuna allahumma anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir inna allah malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima allahuma salli ala sayidina muhammad alfatixi lima awliqa walxaatimi lima sabaq naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqi qadrihi wa miqdaarihi alazim subhaana rabbika rabbi rabbuna wa rabbukum rabbu kulli cheyin rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى